rencontre qui a duré euh, plus de cinq heures de temps d'horloge. Et ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, je me réjouis de cette, euh, de cette rencontre avec vraiment un esprit de dépassement manifesté par les acteurs du transport. Nous avons échangé sur tous les points relativement donc la, à la plateforme et ils nous ont vraiment demandé d'attendre donc le retour au niveau de la base pour échanger avec la base et prendre la décision, euh, en tout cas, qui s'impose. Mais nous osons espérer que cette décision sera la levée du mot d'ordre de grève, certainement aujourd'hui. Nous l'espérons vivement parce que, en tout cas, c'est l'appel que nous avons lancé à leur endroit et que l'État, je peux dire que l'État a posé des actes forts. D'abord, un décret qui autorise les ministres en charge donc des Finances, le ministres des Forces armées, le ministre de l'Intérieur, le ministre en charge des transports terrestres et le ministre de l'Environnement à mettre en place euh, des brigades euh, de contrôle routier, mais des brigades mixtes euh, qui, vont, qui seront composées de la gendarmerie par endroit, douane, les eaux et forêts, ou la police par endroit, plus la douane et les eaux forêts au niveau donc des, des corridors nationaux. C'est un pas important qui a été franchi et qui concerne euh, en tout cas donc euh, l'un des points les plus essentiels de la plateforme revendicative. Donc là, nous sommes en attente. Certainement, donc nous aurons un retour d'information de la part donc des, des acteurs portant donc sur, sur la levée du mot de grève. donc euh, damay rafetlu